ma Birsan Nachiou laa tudd man maay secrétaire général u Sitrakar euh, maa ngi fi nekk ak euh, représentantu SYMPA moom tamit euh, syndicat la bu nekk si biir Auchan ñoo fi nekk di liggéey di àndax ak travailleur du leen gunge dañ fi ñëwoon tey nag pour benn mbir mooy ne dañuy seetlu ne événement yi bu amee manifestation politique yi dañ gis ne jeunes yi dañuy am obsession pour yàq Auchan wala piller ko te xamuñu ne loolu bu ñu koy def dañuy lor seen euh, mbokk yi seen mbokk yi mooy ñal mooy seen mag yi seen rakk yi seen jigéen yi seen càmmiñ yi ah, euh, euh, seen dëkkandoo yi parce que ñoom kese ñoo fay nekk dafa liggéey Auchan deux mille cinq cent la si biir deux mille cinq cent yi mun naa ne huit moo fay ay tubaab expatriés mais deux mille quatre cent quatre-vingt-douze yëpp c'est des sénégalais te c'est des sénégalais yoo xam ne nekk nekkuñ daal la précarité de ñoom ñëpp ñu ngi ak ay contrat yu normal yoo xam ne par exemple ay CDI ah bon nag ñooñu c'est des jeunes yoo xam ne dëgg yàlla alhamdulilah bi alamin amuñu loo xam ne mun na tax boog ñu mun a ŋaññe boog Auchan lii si wax li lu ko warloo ak ñoom mu koy def boole ko magasin yi boo duggee ba si biir produits yi fee fekk foofu c'est des produits sénégalais à quatre-vingt pour cent te ñan ñoo ko indi ay fournisseurs sénégalais fournisseurs yi ñan la c'est jeune jeunes comme ñun ñu ñu monter seen business ñëw gis ne Auchan occasion la pour ñu mun écouler seen produit ñu di ko écouler waa léegi ñu bu ñu arrêté tey jii bu ñu bu ñu nangoo ñuy yàq magasin yi di ko piller mais ñu loola nga kese la seen côté léegi encore Auchan dafa am leen loo xam daf ko fi liggéey Sénégal te fu ñu nangu ko mooy lal mooy fexe na ba euh, njëgu cher yi yi doon dégg. gisoon nañ fi ay tabaski ay korité bu jotoon ñuy nëbb pomme de terre yi di nëbb euh, soble yi ak lii yëpp pour rek yëkkati prix bi mu cher soble jam na fi ba di fi jar kilo mille huit cent loo xam kenn mosu ko fi gis Auchan dafa ñëw réguler loolu yëpp parce que réguler bi mooy lan dafa ñëw maintenir les mêmes prix quelle que soit la situation la preuve xoolal tey jii suukar bi fi mu ne nii mun na ko gis si boutique si boutique si boutique yi boutique koñ yi ndax lu tax parce que boutique yi ñoom nanguwuñu jënd sukkar boobu dañu ne sukkar boobu amuñu si bénéfice léegi nag waaw koor gaa gi ñëw sukkar bu ñu ko amul naka la population bi def heureusement Auchan nekk fii xool leen nen bi tam ni ñu koy def dañ koy jën di ko nëbb Auchan nekk fii au moins léegi sax loolu yëpp nekk na loo xam ne Auchan liggéey na ko fi boole ko dafa am leen loo xam te dafa am solo mooy tey jii Auchan mi ngi fexe ba di def maillage bi sur le sur le territoire national pour permettre à tous les sénégalais foo mënta nekk si région boo mënta nekk nga mën a am accès à des produits yoo xam ne ay produits yu baax la et à ay à des prix yoo xam ne war ma war a jàll c'est des prix normal euh, c'est des prix normaux du moins parce que euh, commerçant yi ni ñu doon def bu ñu jëndee produit Dakar yóbbu ko si région pour jaay ko fa dañuy génn dañuy génnee prix transport bi ak ak fret bi si si produit bi bu ko defee produit bi day chair Auchan loolu yëpp dindi na ko loolu yëpp amatul bon nag nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla. ñun dañ fi toog pour xamal ne nekkuñu faruñu Masamba wala Mademba loolu du suñu problème xam nga ñun suñu problème mooy lal ñun ay organisation syndicale nañu li ñu gëm mooy lal mooy ak yeleefu liggéeykat yi nañ ko respecté mais liggéeykat bi tam bërëbam ba muy liggéey tam nañ ko ko sàmmal bon nag ñun suñu mission loolu la te looloo tax tamit nag ñu ne nag war nañ jàkkaarloo population bi pour waxtaan ak ñoom pour ñu xamal leen ne nañuy moytu naxee mbaay yi wala ñii di leen di wax loo xam ne amul parce que daf si am ñoo xam ne tey jii Auchan seen taxawaayam fii arrangé wu leen bugguñu ko luñ ñoom lu ñu buggoon mooy nañu di noot population yi di def lu leen neex si marché bi si produit yi loolu la Auchan dindi te neexu leen moo tax ñoom ñooy nekk si suuf di actionné ay levier di financé ay booy yoo xam ne xamuñu nu mu demee ñuy def naka suulul noonu si magasin yi pour bañ loolu nag moo tax ñuy ñëw fii pour waxtaan ak. liggéeykat yi waxtaan ak population bi waxtaan ak jeunes yi xamal leen ne bu ñu nangu dugg ci combat boo xam du seen komba parce que li ñuy def nii seen moromu doomu sénégalais kese nañu lool. pour pour faire face à ces manifestations. pour eh, foofu aussi war nañu remercier euh, les forces de l'ordre wax dëgg yàlla mun ñu leen fay parce que tey jii dans les moments difficiles ñoom ñoo taxaw aaral ñu suñu outil de donc tamit ñu leen di remercier di leen gërëm bu baax a baax léegi tamit lii xam ne tamit si action yi lii bokk na si le fait que ñi ñi dem si médias yi parce que suñuy point faible c'était que la communication ne passait pas moo tax ñëw ci point euh, ci médias yi pour informer sensibiliser xamal nit yi lii xew parce que Sénégalais yi tamit euh, dafa ñu c'est des gens boo leen waxee lii xam ne moo am mais eh danañ xam ne lii am na parce que ñun fii lu ñu fi wax amul dara loo xam ne dañ ko fi inventé wala amul dara loo xam ne dañ ko wax pour mu neex Auchan déedéet la preuve ñaata yoon nañu dem inspection du travail ak Auchan chaque fois bu jalgatee ñu dem xeex ak moom comme il se doit wante tamit nag bu bu bu bu heure wax dëgg jotee tamit ak lii xam ne tam moom moo ñu arrangé te muy sut sutura mais bu boobaa nag dañ ciy taxaw tamit euh, jàkkaarloo population bi xamal leen ne lii duñ ko seetaan ngeen koy yàq loolu mooy wax ji duñ ko seetaan ngeen koy yàq man maay Ibrahima Nachirou secrétaire général u Citracar kii waaw kii moom mooy représentant wu SYMPAS moom tamit. madame Ndoye Aïssatou Camara délégué syndical SYMPAS SYNTS. Euh, dañu ñëwoon pour waxtaan ak euh, population sénégalaise bi waxtaan ak sunuy mbokk sunuy xarit sunuy dëkkandoo wan ne seen ay mbokk yu nekk Auchan. di fi liggéeye ñoo ñëw pour génn wax ak ñoom ne dañu bëgg sauvegarder suñu outil de travail et à travers ça li nga xamante ne moo fi jot a am ci manifestation yi jàll ak yu bëkki démb yi yëpp nekk loo xamante ne rafetluwuñu ko ndax dañuy gis ay doomu dëkk bi ay jeunes ñu xamul di attaque Auchan yi ñu jàpp ne bu ñu attaqué Auchan yi lu ñu fi yàq seen ay mbokk sénégalais lañ ko yàqal luñ fi yàq seen ay yaay seen ay tante seen ay moroomu euh, jeune ñoo fi nekk ñoo fi ëpp sax ci biir kër gi ñoom lañ ko yàqal ñuy ñëwoon aussi di feddali suñu taxawaay ci entreprise bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal turu bi nekk fi rek muy Auchan te li ci ëpp nekk ay doomu réew mi li ci ëpp nekk ay jigéen parce que jigéen dafa am place am plus de 40 pour cent ci magasin yi ay jigéen ñoo nekk directrices yi plus de 30 pour cent ci personnel bi muy 2500 yi nga xamante ne ñoo fiy liggéey bés bu nekk di fi yeewoo di fi suturlu di fi am seen teraanga am na 30 pour cent yoo xamante ne ñëpp ay jeunes lañu te li ci ay jigéen lañu aussi ñu leen doon xamal ne euh, que Auchan dafa nekk loo xam ne dafa ñëw. non seulement dimbali ñi nga xamante ne collaborateurs yi ñu ngi fiy liggéey ñu placer leen confiance ba nga xamante ne bu ñu duggee ci biir société bi dinañ mën a wane lu bari ci seen bopp dinañ mën a yokk ci ci biir société bi mais aussi dinañ placer en ñoom benn professionnalisme boo nga xamante ne xëy na bi ñu fiy dugg amuñu ko woon mais accompagnement boo nga xamante ne la Auchan moo ko def ci ñun à travers les formations à travers li nga suñu quotidien liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def ak service yi nga xamante ne ñu ngi koy doxe ci biir Auchan looloo taxoon ñu ñëw pour waxtaan ak population bi jeunes yi di leen xamal ne quoi ko qu'on dise a lu mën a am kenn ku nekk am nga droit féete fi nga war a féete euh, peut-être manifester dans la disipline aussi mais ngallaawaay nañ ñu bàyyil sunu auti de travail bi nga xamante ne ci la ñuy ci la ñuy ut suñu wër. pare pour jàmmaaloog moom comme seen ay moroomi jeunes rek ñoo fi nekk dañ leen di woo appeler à l'ordre bu buñ leen appelé à route buñ ko déggee moo leen gënal moo ñu gënal parce que ñoom tamit suñuy doom a ngi ci suñuy rakk ngi ci bu loolu amul tamit jël nañu soo ay dispositif toog di leen xaar te xam naa ne loolu sax duñ ci àgg yaakaaruñu ne duñ ci àgg nañ xam ne Auchan yëpp fi mu nekk nii weñ yëpp électrifié nañ ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ duñ mënta wax boolekaak gis nañ ne aussi euh, force de l'ordre yi ñu ngi taxaw jàkkaarloog ñun de tout façon jeunes yi peut-être ñun mag yi sax ñoo ci nekk di tempérer di modérer di wax ak ñoom mais quand nit ki teraangaam boo ko ko mënee bëggee yàqal ma jox la bakkanam voilà merci. Euh, Alioune Badara Diop euh, euh, délégué la délégué la si titulaire si Auchan maa ngi féetee entrepôt Auchan léegi man benn affaire man moo ma jaaxal xam nga jeunes yu bëri dañuy seetaan dañuy seetaan dañuy suivre sport en particulier football dañuy gis benn benn benn noir comme ñun. nga gis euh, nit yu weex yi di di di di di di di def genre racisme yooyu seen yuuxu yooyu bu ko defee ñun fii dañuy kaas naan loolu du yoon loolu du yoon gis nañ tamit suñu moroomu sénégalais yi ñu doon sonal fii Tunisie soo xoolee leen doon ñoo ngi doon déplorer loolu naan lii du yoon du yoon waaw ah, léegi yow mënoo wax loolu ba pare yow tamit yow en retour yow ngay ne lii alalu France la xam nga loolu loolu xénophobie la yow yow mënoo kaas lee ba pare def la même chose kon ça veut dire que ba pare yow après yow ngay yàq léegi yow suba nga ñëw nga ne dëkk bi amul liggéey wala dëkk bi dafa metti or yow yow condition yooyu noonu pour mu am yow yaa ngi koy yàq léegi nag man leen laay xaar ci autorités yi surtout autorités politiques yi yow tey da nga woote dara nga ne nañ génn nañ def dara léegi am ñoo xamante ni li nga woote ak ak li li ñuy def bokkul man dama doon xaar à ce que tamit ñoom ñu déplorer loolu wax ni lii nii ngeen def jaaduwul est-ce que nga li ma wax wax ni man ba may wootee lii pour lii la woon pour lii woon mais saccage yeeg wala pillage yi man woote ma maa ngi xaar à ce que